jiite réew mi yore ko mais tamit am yeneen pouvoir yoo xamante ne jox nañ ko yeneen doomu sénégalais yu mel ni député député yi buñ leen joxee ay cër

responsabilité bi day gatchu ci ki nga xamantene mom mo wara organiser les élections yi pour élection yi libre pour élection yi transparent tay ji ki nga xamantene mom lañu wax niko moy suñu ministre de l'intérieur nangul nañ ko ko mais na jël suñu élection jox ko benen ministre mu organiser suñuy élection Aly Ngouille Ndiaye ñok mom ben problème bëgguñu mu organiser suñu élection lañ ko wax waxuñu na maki Macky yalla buñu ko wax parce que kilifa la bàyyi la